nan wañ màggali ndigalal xadiim du faykat du giim ruuy moo ko moom kon nañ màggali barkeb Seexuna ragal korona du tax man mana du ma màggali sëñ bi woon na leen kon wuyu ji kuy góor mbaa jigéen ay ca màggali takk masque dem lii xam dee dem dundu dem danuy magali man de maa ngi waaj bernde yu ma taaj foog ma dégg daaj waajal magali saaflu naa kafe ay kaas du jafe ndigal dal jëfe nan waaj magali wut na warga teg gaas yi am na bég bis sunu mbég danuy magali foog ma jënd sel bagaayu ma sol ngir moo di ndigal ci ñi màggali ñaw sama dara sol dalli mara sañ kara jéema màggali ma ki gungenu sécurisé nu bul too rek banu nun ñi màggali xew yi fi awoon yépp lan ajoon waaye wi le yoon dañuy màggali Seex Bas moo ko wax